les candidats yi nga xam ne ñoo nekk ci l'ex Pastef ñoo jóge ci elu ex Pastef wala ñu ànd ak Ousmane Sonko euh, actuellement ñu ngi noté au moins quatre à je pense quatre su ma su ma su ma juum Birame Souleye euh, Guy Marius Sagna Euh, Abbas Fall ak Bassi ak Birame Souleye euh, euh, ak. cinq lañ doon voilà alors loolu. bon après il faut peut-être que mais bon. ja dama bëgg. pour dama bëgg Naar Fall Naar naa bàyyi wax ex Pastef kon naa wax ñu ànd ak Ousmane Sonko. Ah, d'accord alors alors alors mais loolu loolu mën nañ ko. voilà loolu mën nañ ko jàppee mën nañ ko jàppee stratégie politique bu ñu teg pour bañ ñu nasaxal kenn si ñoom bu fekkee tànn nañ kenn Voilà, nous japonais, ne xëy na seen bi moo commencé di xëy tas parce que leader bi nekkatu fi euh, ñaar yooyu boo si doon jàngat naka nga koy stratégie politique voilà, nous bi mooy tas ku nekk dem wuti say nit. ah bi je dirais pas ça. Mhm. mais nous avons comprendre par euh, pluralité par stratégie politique. maintenant cette stratégie politique. Mhm. mais qui n'est pas assumée. qu'il n'assume pas. pourquoi. voilà. Mhm avons dit que ne dañuy divertir Sénégalais parce que les Sénégalais comprennent déjà. nous hmm. li may jàpp diversion mooy tey Diop même pas 24 heures il est sorti dire. que notre seul unique candidat. Hmm. c'est Ousmane Sonko il est le plan A et le plan B. mais moi soo may wax dire. mais ne veux pas le dire parce que man xamna naa stade hmm. Ousmane Sonko ne peut pas et ne sera pas candidat donc pas le non, parce que, débat. le débat il est dépassé ah. même si moi je considère moi, non moi je moi moi moi, je dis man. ma conviction pas ah, bah, Moussa bah, ma bah, conviction ma conviction c'est quoi c'est que hmm. il est illégalement hmm. et injustement radié des des listes électorales ma conviction c'est ça hmm. maintenant il y fait le fait c'est quoi c'est qu'il est radié il y a l'acte qui est là mm. maintenant mm. il n'est ni électeur donc il ne peut pas être candidat mm. ne pouvant pas être candidat c'est-à-dire que même si koy wax nga def nga wax même si ciel Sénégal aussi il ne sera pas candidat c'est peine perdue sens c'est du verbiage c'est du bavardage amul sens donc on l'a lay wax ne tey pas waa mais quand même c'est cet élément de langage Il faut voir jugé si c'est si langage. si c'est-à-dire que yow xam nga Sonko candidat il ne sera pas candidat et tu perds ton temps en parlant de de de son de Sonko c'est-à-dire aujourd'hui j'ai même j'ai même vu euh, leur avocat euh, maître Bamba Sissé, même s'ils sont dans leur logique mais ça c'est peine perdue également c'est-à-dire que il faut am la loi électorale mon monnaie pour être candidat il faut d'abord <coughs> être électeur

Fini base basé au mooy. que nous acte de radiation. Hmm. pas acte de notification la ñuy acte de radiation la hmm. donc sur cette base nous avons ah la direction a raison et la direction faut la fonder sa décision. daf ko la direction daf ne yow ne coach liste ah mais une motivation. ah yow gisoo yow yo mais c'est là lañ koy motiver. motivé. ko mais mais pas pour ça, je vais expliquer. non tu dama non je veux avoir plus d'informations bu dee ñoom ñoo wax loolu. mais radiation bi motax sans sur cette base kese lañ ko mën non ñom ñoo ko wax wala waxuñu ko. ñom ñoo ko wax. ñoko wax waaw c'est ça. maintenant li nga wax ci dambo ci xawma xawma lool tamit benen débat la. Hmm. mais li ma ah, bëgg a wax débat même débat bi la. non li ma bëgg wax moy non dina lèr li ngay wax ni yépp c'est très intéressant li ma bëgg a wax mooy. Bass hmm. euh, Bassirou Diomaye Faye candidat. oui El Malik candidat. oui bon retirer seen fils parce que ñoom assumé wu seen candidature dañu wax justement on a retiré des fiches mmh. de, de, de, de parrainage. de parrainage mais derrière une fiche de parrainage c'est parce que tu es candidat ouais. mais il faut le dire mais après wax ne wooy da de, fiche rek candidat nga en ah, principe normalement en principe en principe ah et en principe en principe c'est ça d'où vous tenez ce principe là non, parce que parce que mais mais ah pas ça pas ça oui pas ça si tu pas au ça.

am am candidat. wala candidat fiche donc également vous devez retirer wala c'est parce qu'il veut être candidat c'est ça. donc Lolo, même beau expliquer l'année ça reste la même chose wala a ngi maintenant le mot wax ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui nit ken du nax sa wala du nax sa y a une évidence qui est là l'évidence politique c'est quoi c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ira en élection présidentielle 2024 sans Ousmane Sonko, mon candidat à la présidentielle. Il y a une présidentielle aussi sans Pastef am candidat. Donc maintenant, nous le beaucoup n'en pas mais d'ailleurs il maintenant l'inga hamet nous mon nek, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon comprend comprendre mon am euh, El Malik Ndiaye, El qui Bassirou, moi également Guy Sagna, d'accord, mais aujourd'hui, bon, les Sénégalais ils lisent bien, en tout cas ils comprennent, hmm. mais vous pensez que la démarche de Guy Marissan, elle est gratuite vous pensez que les communications immédiates, elles sont gratuites vous pensez que campagne à, dans la diaspora c'est quand même gratuit mais ça même il n'y a absolument rien de loo c'est-à-dire qu'aujourd'hui même sans le dire

mais may ko mu tontu ko. mais grand waa grand waa. c'est important. parce que am na leeral yoo xam ne day jeex.

une candidature avec validation candidature. Nous il y la loi organique sur le conseil constitutionnel à son article Le conseil constitutionnel doit recevoir. oui arrêter la liste des candidats. oui deuxièmement mon nom tout fu ah. juger Karim Wade de manière définitive. oui jugement définitif Khalifa juger définitivement te jox candidature fan valider euh, dañoo dem ba conseil constitutionnel ñu ne leen rajee nañ leen bu yàgg ci liste yi génn leen kon tey Ousmane Sonko lan moo tax DGE bi nga xamante ne malgré la radiation de Karim Wade qui relève à de 2016 2019 jot ñu jox ko fi Ousmane Sonko ñu ne jugé nañ ko définitivement te joxuñ ko fi lu war loolu DGE mooy joxe euh, mooy candidature. mais qu'est-ce que la loi électorale dit. très bien pour être électeur pour être candidat il faut être électeur faut dire c'est defal nank ah, kat moo décider ñoom barki dem boo jaay ñoom sàmbat barki dem boo jaay la hmm. ñu wax waxu ay deuxième quinquennat c'est yëfu tappale yooyu lan lañ doon wax conseil constitutionnel kese wax kuy candidat tey DGE moo koy wax tey DGE je te donne des cas yu clair Karim Wade jurisprudence bu leer la dañ ko radier définitivement avant 2019 mais est-ce que la loi électorale n'a pas évolué également Jamais. Jamais. Il y a une réforme. Non, non, non, non c'est en 2018. C'est en 2018. Attendez. C'est en 2018. 2018. Non, premier alinéa, moi, tout Sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu. C'était en 2018. C'est en 2018. Donc avant 2019. Lors 2018. rattraper rattrapé Karim Wade, Minou Dan, 2016. Karim Wade 2016 dañ ko radié 2019 xanaa gisoo leen Karim Wade ñu inscrire ñu ne ko nekkoo ci fichier bi rejeté inscription loolu 2018 la teew 2019 Karim da dem ñu jox ko fiche sëñ bi. est-ce que boobu moo légal woon. nak administratif parce que fële ak boobu légal ok ok Khalifa Sall hmm. ñu rajé ko ci liste bi ba mu démé ñu jox boobu tamit légal ñoom boogoo légal bu Ousmane Sonko bi non xaw ma ban moo ci fondé ban la ci loi fondé leen caaxaan ban la ci loi fondé maanaam ñaar yooyu noonu yëpp ñoom ñoo illégal bu Ousmane Sonko bi légal la loolu la ñu ma bëgg a gëmloo waaw léegi je te donne d'accord je te donne mais mais est-ce que ces gens là leur parti n'a pas été non non non pardon déçu may ma may ma foofu tamit manipulation d'accord damay laaj damay laaj dafa nag femme sax nga expliqué nag ñu lay laaj dafa nag yow tamit wante kii dafa laaj non laaj ma la de waaw dama la répondre. waaw d'accord léegi ah, élection benn nit la. mais moom c'est la personne. mais Samba Samba yàlla bu leen di wérante parce que parce que am na ñuy leeral nag donc. on peut être indépendant et être candidat. on peut être c'est vrai bàyyi leen Pa Moussa mu parce que li muy wax am na solo. candidat ak parti comme yàlla ak yàlla. waa léegi d'accord waa léegi direction oui. coalition amul parti. mais am na récépissé parti moo koy porté parce que récépissé lay demee moo tax ma ne leen parti moo ma ne leen candidat récépissé lay demee waaw ah, mën na demee récépissé lay demee amul amul ku dem élection te demoo récépissé amul ah, am na kay am na am na kay am na indépendantiste ah, waaw

regroupement de personnalité de personnes indépendantes article bi dem ba ci biir mu ne lan personne indépendante mu ne ki nga xamante ne musul militer ci parti wala hmm. bi mu arrêté euh, activité du ci parti hmm. ça remonte de plus d'un an hmm. xam nga lolu concerné wul ñom euh, gii Ñi bi ñu jógee ci parti motul un an Yagul. yàggul kon ñoom mënuñu dem ci indépendant kan bu mu jógee ci parti yàggul. ñoom ñii ñëpp. ñan Guy Marius Sagna Birame Souleye. Guy Marius Sagna bu mu nekkee ci parti booba booba ça ne date pas d'aujourd'hui. waaw ah, loolu laa loolu loolu dafa déggul non dafa comprendre dañ ne bi nga cessé d'appartenir à un parti politique def na plus de un an. Ah, ok pour pouvoir être candidat indépendant. ñooñu au sens de la loi électorale. ils ne sont pas des candidats indépendants. comme Madické Niang. non non doucement. Madické Niang c'est une personne dafa am récépissé. non il a cessé je dis. oui doucement rek Guy Marius Sagna

Ah, moi, moi, argument parce que radiation dafa am condition dafa donne le ñu qualifier lan radiation c'est un acte administratif individuel manam bu ma la ko ci olof acte bu administration pour bénin nit hmm. fallu xuma euh, bon aussi c'est condamné nañ ko pour viol subhanallah radier la concerné si loi la ah. opposabilité mi ngi publier au journal officiel ah. bi acte administratif individuel opposabilité notification notification mais mais moi, mais acte administratif individuel loi 2021 21 du 2 mars 2021 12 mu la notification bi dang de koy jox nit ki ci dernier résidence connue wala nga jox ko ko en personne c'est quoi une résidence Ousmane Sonko il réside où actuellement. Ah, est-ce que nous sommes euh, hôpital ba. jeex na.

Boudé euh madame Kuma. non vous madame Kuma. waxal madame. dafa dafa ga. da nga Vous kër ga. fa. nga nangam hmm. exécuter Vous obligation de rester à la maison. Vous euh tribunal da nga elle a payé elle a payé. Beaucoup beaucoup de gens mais en droit payer c'est exécuter une obligation hmm. Le mot bëgg wax dire que bi livre français résidence mm-hmm. mën na doon lii ci français mm-hmm. ñoom ñëpp yuuxoondoo mm-hmm. non non non non mais doon ko droit looloo tax dictionnaire français moo am dictionnaire droit lexique des termes juridiques am fee parce que xam ne terme bi li muy si mais loolu nag su arrangé da koy tax da nga koy tax arrangé wu da nga koy tax may ma may ma non si si si si am na am hôpital loolu am hôpital nag du hôpital waa léegi bàyyi ko dina ci yegg waa dina ci mais na pare deux minutes ma jox sama deux minutes a léegi xam nga l'esprit de la loi c'est quoi non dañ mooy fi nga xamante ne nit ki am nga accès ci moom am nga accès ci moom jii nii Ousmane Sonko boo bëggee accès ci moom que un huissier mën na dem si hôpital naan day jox koo xam ne dañ ne mi ngi mi ngi hôpital euh, non non non non non euh, ne nekkul réanimation. xam nañ fi mu nekk daal mën nañ ko ko jox semaine mi ngi ko mën a ko mën a jox. ci Ousmane Sonko. non non il est là. xam nga lan moo waral loolu. parce que Ousmane Sonko mënul bañ jël notification bi. parce que à de cette notification. Hmm. le délai. bi hmm. mu am pour def recours di mën a courir. te te bu defee recours bi mais bi day prospérer donc Ousmane Sonko dafa soxla notification bi parce que sans notification bi ne mën pas. def mais ces avocats lan lañ attaqué y' a y' a une semaine dix jours. non il y a jox bi ñu ko jox bi eh, non non non c'est la est à la CDAO. acte de radiation bon. Mm. acte de radiation c' est à dire kii li wax. Maître Bamba Cissé. Maître Bamba le fait que.

kon da ngay nangu da ngay nangu ne radiation am na balaa nga koy attaqué euh, j'ai vu Bassirou foofu ci benn plateau muy wax loolu mais parce que possibilité potentialité parce que ça vient d'un ministre mais sa waay Ousmane Sonko fu mu nekk loolu question la mais tribunal am na ay bu dee attaqué tribunal naan ko ay bu dee loolu am na ci tribunal ah, ba naan leen nañ gaaw délibéré di di leen jox injonction da ngay jaxase référé bi bokkul ak lii

non non dama ne ay daax loolu la. pour mu leer rek dafa ne DGE dañu wax mané ko lan la wax DGE lu mu wax. est-ce que on les gens ont le temps à chaque fois on on répond on répond à des petits d'accord. mais ndé yow li nga wax deug la. Hein? amul benn benn manam jurisprudence bi ma lay tégal DGE du wax lu tax nga jox Khalifa kon. lu tax nga jox Karim kon. Hmm. pourquoi nga baña jox Sonko. Hmm. du ci tontu. munu ci tontu euh, Pape Demba. parce que amul argument bu mu lay motiver cette décision. parce que jugement bu définitif motax tax mom Sonko bokk mais avocats yi moom mën nañ ko attaquer devant la loi quoi les avocats de Sonko mën nañ mën nañ mën nañ attaquer ñak bañ biñ ñak jox Sonko mom la Bamba si dafay gën neex parce que parce que day day day pousser cour suprême oui la mu tontu léegi yow mu tontu oui la mu tontu ci ben laaj ah, ok parce que buñu ñu hmm. radiation dafa am oui moom cour suprême hmm. li muy xoolee radiation dafa am foog mu xol ndax jugement bu définitif dafa am ci Ousmane Sonko donc kon Cour suprême aura le mérite de nous dire de nous dire est-ce que le jugement Ousmane Sonko est définitif parce que euh, mon professeur je pense que c'était le militant qui parlait Ismaïla Madior Ismaïla Madior Cour suprême dinañu wax ni euh, radiation mënul am parce que jugement définitif amul parce que le jugement bu définitif dañ ne la recours yi jeexee pour pourtant situation Sonko dañ ne recours mënul am maanaam recours yi ko Ismaïla Madior ne jeex na. Eh, ah, yaa ngi distingué de. Ah, kon dangeen ah, ok d' accord d' accord bon d' accord Tamba waaye question d' accord professeur Ismaïla Madior Fall dafa ne. c' est important. contumace bi non contumace bi. dafa ne contumace c'est définitif. oui loolu la wax waaw. mu jugement bu définitif la. jugement bu définitif mooy jugement boo xamante ne toutes les voies de recours sont. lan mooy anéantir contumace. mais ma mais ma mais moom du ma ñëw foofu. Ah, waaw parce que foofu ngeen di wax ne waruñu distinguer. déedéet du question distinction déglu rek. waaw sëñ Ba la mën nga aussi Ismaïla Madior Fall nee na. voie de recours jeex na. voie de recours jeex na. code de procédure pénale ne ko. Hmm. professeur ba wat a wat. article 313 ne ko l'appel n'est pas ouvert au contumace quand l'appel n'est pas ouvert qui n'est appel est terminé. C'est définitif. c'est à dire recours terminé. recours terminé Ismaël Major. Qui ne le recours tijjeekoogul. Eh, déet L'appel n'est pas ouvert au contumax. waaw waaw non c'est définitif

boo ah. ne nanguwuma. Samba Samba Samba foo koy jaar. Samba dafa mel ni. ci